solo la te loolu ci boppam firnde la ci solo bi nga xam ne màggal juddub yonent bi am na ko ak nekk gi mu nekk sunna waxuma sunna rekk sax waaye sunna mu akkada dafa nekk sunna su foor màggal juddub yonent bi sallallahu alayhi ndax yonent bi ci boppam daf ko màggal ci dundam ndax wax nañu ne altine daf koy woor te li tax mu di def parce que ci la judd won ku fonkon bisu altine la ngir lan ngir lim ci judd woon dëgg yalla kon nak magal na magal nako ci anam bobu su boba nak bepp anam bu dagan nit man na cee màggalee juddub yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu jotee xel war nako dacc nit ñi war nañoo beesal seen yéene war nañoo beesal seen kóllëre diggante seen diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa war nañoo nàmm seen cofeel ak seen shawq ci yonent bi sallallahu alayhi wa jël seen bopp jibbal ko sang bi ci ay bëgg-bëggam ci ay yi mu bañ ndax ci moom dong ngay mën a jaar mën a dem ku dul moom doo dem léegoo ñu naan la ñu wax la lu bokkut ak loolu waaye lii mooy li wér keneen kooy mën a jokku hit dafay fekk ne buum gi dafa jokk ca sang ba de waaye keneen koo mën a jokku te duhul taalube sang bi buumam gi jokkuwut ca sang ba doo àgg waaye bépp buum goo xam ne nag mu nga jokk ca sang ba soo ci jokkoo da nga dem nit ñi nag ñiiñ gis lañuy ñuy mën a topp te ba àddina tukki nag noonu la ndax sang bi sallallahu alayhi wa nit mënu ko topp ci anam bi may waxee mën nga ko topp su fekkee boroom xam-xam nga nga dem ci téere yi <clears throat> yiñ la bindal nga fekk lañ fa bind nga dem ci alquran nga dégg ko man caa topp sang bi waaye danga jàng te itam loolu nit a ko def loolu nit moo ko fi def bind ko fi nga man caa topp kon noo mën a def rek am keneen ku bokkut ak Moustapha ci taalubeem yi ñoo xam ne ñoom ngay jokk nga mën a dem wala nga jël sa bopp jokk ko ci boroom xam-xam boobu su la neexee nga tuddee ko borom xam bi su la neexee nga tuddee ko sëriñ bi ne ñun ci suñ aada sering bi lañ ko daan wax borom xam-xam yi ñoo daan serigne ci ñoy serigne ci nga jël sa bop tak sa bop ci ab serigne bo xamne dafa tek tankam ci sunna jang na ko xam na ko di ko nga roy ko ca mom xam na yoon wi dem ci mustafa mu man la fa yobbu mustafa yobbu la ci suñu borom subhanahu wa taala waaye kenn nag ta ag ci boromam lulul rek nga def li moo tax léegoo léeg nga jaaxle ci nit kuy wax ne toppe waruñ ko def dangay dem daay rek ahankay da dem daay rek waaye lan mooy daay rek daay rek mooy ki nga xam ne xam na yoon wi te dana la yóbbu soo ci toppee yaa ngi dem daay waaye daay rek namul tëb tëb fi ñooñu mu ngi mel ni tey da ngay dem Banjul ñu ne la demal daay rek loolu mooy lan mooy bul bul bul bul bul bul bul war moto xanaa bul war moto walla bul dox soo soo waree moto walla ngay dox loolu lañuy tuddee wasila loolu mooy miin bi lay yóbbu fa nga jëm sëriñ bi wala boroom xam-xam bi moom miin la moo xam yoon wi dem ca Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mu wan la yoon wi su fekkee nag boppam la la wan. nga teg ko fa ni yekk bu naxari xam ne képp ku lay woon boppam <clears throat> du la mën a yóbbu ci yàlla sang boobu li tax ñu war a fonk bésam bi te su ñu waxee bés bi ci language bi ngeen gën a xam mooy gàmmo gàmmo mooy lan mooy guddi giñ ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa gane àddina ñu fàttaliku ko daje. ñi xamut yonent bi sallallahu alayhi wa ñi ko jàngul ut boroom xam-xam ku xam jaar-jaaram ku xam ay meloom mu taxaw di ko nettali ñu indi tàggkati yonent bi sallallahu alayhi wa ñuy wëy di tagg yonent bi xol yi di liw di nooy ba nga jëlee ci xam yonent bi wala nga jëlee ci sopp yonent bi soo ko soppee daf lay dimbale ci nga topp ko te soo ko toppee texe loolu mooy gàmmu loolu nag sunna la sunna sax mu akkada sunna su fade la soo xam ne dañ ko war di def xanaa kay li ci metti <clears throat> mooy liñ koy def at ak at waaw waaye nag ku mënta am léppit mën a def loolu xanaa kay ku ko mënta def weer wune ne it at mu ne nga mën a bokk ci loolu ci màggal guddi googu wax dëgg yàlla su fekkee mënuñ koo def at mu nekk kon loolu mooy gàmm Moustapha dañ ko war di fàttaliku ngir mooy ki nga xam ne soo ko fàttaliku yow doomu aadama it kawnu bi lépp fàttaliku na ko ndax bi mu ñëwee la lépp soppeeku bi mu ñëwee asamaan soppeeku na suuf soppeeku na doxalin lépp soppeeku na ku dul yàlla rekk yàlla rekk a soppeeku hut waaye bi mu ñëwee lépp a ceeñ la ko waral xam ngeen ko moom la yàlla tànn jagleel ko li mu ko jagleel ba mu ñëwee fekkoon na fi lu ñuy tuddee tooñ ak jalgati ñu dem ba miin ko ba mel ni dara nexu ci Moustapha ñëw fees boobu mu ceeñ ko indi fi lu ñuy tuddee adalatu indi fi lu ñuy tuddee justice tooñ bokkut jalgati bokkut loolu balaa Moustapha ñëw miinoon nañ ko muy tooñ ak jalgati ba mel ni lu war a am la ku ëpp doole lo lottal ku néew doole jël alali jàmbur xeebaate reyante noonoo bañante Moustapha sallallahu alayhi wa moo ñëw yàlla soppi lépp néew doole amoon na fi lool ku bokk ci famille sàngam moo am doole moom rek ko war a wax moom rek a war a def ku ci bokk duhoo dara mustafaa ñëw loola soppeeku mu mel ni ku am dëgg dong yaay ki am doole maanaam ku ànd ak yàlla yaay ki am doole ku àndut ak yàlla yaay ki néew doole bi mustafaa ñëwee soppi na li nga xam ne moo doon gisi ni doomu aadama bu bu dellu gannaaw bi doomu aadama da daan yett wala mu tabax jàllar bi ku di ko jaamu gëm ne loola da koy jëriñ te da koy lor loolu fa la dellu gannaawu doomu aadama bi gën a garaaw foofu la nekk tabax ci say loxo wala nga ett ko ci say loxo jàllar bi kooti gëm ne moo la gën gëm ne moo lay jëriñ mën na laa lor man loolu doyadi mosuk mosut cee àgg ci loolu la Moustapha fekk nit ñi Moustapha soppi ko fexe ba nit ñi xam ne am na ku leen bind te ki leen bind moo leen di xéewal moom rekk moo leen mën a lor moom rekk a mën a jëriñ mu fexe ba takk leen ci kooku fexe ba ñu gëm ne kooku ku ñu war a delloo njukkal la mooy kuñ ñu war a jaamu ñu fexe ba dem toj lañ tabaxoon damm bant yañu ñu yettoon gëm ci ñoom ay caaxaan loolu Moustapha sallallahu alayhi wa moo ñu ko defal bi mu ñëwee balaa moo ñëw loolu amutoon bi mu ñëwee la loolu am Moustapha sallallahu alayhi wa balaa mu ñëw siiwoon na te rampant ci suñu dundin li ñuy tuddee xaxar noteel njaam yaa ko ëpp doole jàpp ko di ko def loolu la neex kenn du gor su la neexee rey su la neexee jaay doomu aadama ni ko yàlla fonke wala qad karam naa bani aadam wa xamalnaahum fil barri wal bahr ni ko yàlla fonkalee boppam nga xam ne moom ci boppam moo ko wax ne dama ko teral